mbokki internet yi safoo setaan AGT news dalee nag jàmm ci xibaar Cheikh Abdou Bara Dolly moom nag àdduna ci li nga xam ni moom moo ñeel assemblée nationale gannaaw session ordinaire bi nga xam ne tàmbali na moom nag daf ci am ab révélation bu doy waar bu mu ci wax nee na la nga xam ne moom la leen jox ci ay document ngir ñu càmbar six mille milliards yi nga xam ne moom mooy budget wu Sénégal bi ñu fas yéene voté ci fan yi di ñëw ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ministre yi ñoom ñëpp dañ faa war a jaar kenn par kenn daal di càmbar seen ay budget nee na nag loolu mi ngi toll toll ci soixante kilos ay documents yoo xam ne kenn ku ci nekk dañ la ko jébbal nga war koo càmbar benn par benn laata ngay ñëwaat fii ak fukki fan ca foofee nga xam ne ba moom nag a baax mbir yi ñu doon wax war nañ cee gaaw a li nga xam ne moo di monde di téye ay documents di ko jox ñi nga xam yi ndax loolee dafa xew yi nga xam ne moom la jox tey muy 60 kilos documents yu diis gën nañ ko def ci ay clé jébbal leen ko bu ko defee ñu xam ni monde bi dafa changé te jot bu bëri amatuñ ko ndax Sénégal gi dañ ko war a liggéey. boo kenn def noo di safoo setaan AGT News leen suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu wér te